la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ànd ak yéen saa su nekk ci xitma bu demee nii tey ñoo ngi ci Daaru Minaan ci bisu Zikrullah bi mel na ni tàmbali ngeen seen liggéey ndax mën ngaa dikkaat ak yéen mën ngaa dikkaat ak ñun ci teewaay bi liggéey bi ak lépp lu ci aju. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax di leen ndokkeel tamit ci bis bi nga xamante ne nii moom la ñu bokk ñun ñëpp muy bisu Zikrullah bi nga xamante ne nii Cheikh Mouhamadul Euh, jagleel koy tudd yàlla ñun nag waa ahlu liggéeyal Bamba ñuy rek ñu am benn taxawaay ci liggéeyu Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mooy fépp fu mu woote ñu fas yéene ñëw def suñuy tànt waajal ay berne ngir joxal ngir séddaleel ko ko ganam ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi ñëw di ko wuyu si ba du lu ñu soxlawoo rek ci lu jëm ci wàllum lu ñu war a xewloo ci wàllu ndékki wàllu añ wala wàllu reer wala ak ak ak naan moo xam muy euh, ndox wala muy boisson wala muy kafe wala muy attaaye lépp rek ñu waajal ko ngir gan ñi man cee bénéficier wu lépp ngir gën a mën a jekku liggéey Cheikh mu Mountakha bi loolu moo waral bi yoon ñu ñëw def fi ñetti bâche bâche boo xamante ne nii fi la ñuy waajalee togg yi ak boo xamante ne nii fa la ñuy séddalee ndox mi ak foo xamante ni tamit fa la ñuy séddalee berne yi loolu yëpp ñi ngi ko ñi ngi ci ñi ngi ci dabu ngërëmul Cheikh mu Mountakha ndax xam nañ xam nañu bu baax ne ngërëmul Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy ngërëmul Serigne Touba rek te ñun loolu rek moo ñu ñor mel ni tey gis nañu ne yéen a ngi waajal ndëkk yi ndax mën nañoo xayma rek ci gàttal ñaata sandwich ngeen waajal rek ngir jox ko Baye Fall yi nga xam ne jamono yi ñu ngi ci zikr bi waaw ci wàllum sandwich yi moom dañoo waajal 4000 pain yoo xamante ne ni dañ ko def ñaari pàcc sandwich su yàpp sandwich su ginaar lépp rek ngir maanaam fas yéene koo tàmbalee séddale léegi mu jëm midi une heure bu ñu demee ba 14 heures jot nag am na mbaxal mu ñuy waajal moo xamante ne nii dañ koy def ci ay barget di ko séddale par pot loolu yi tamit ñu fexe ba ñu nekk ci biir kër sëñ bi ak ak Baay faa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy zikkar di wër ñoom ñëpp aussi ñu mën cee xéewlu ndax xam nañ ne euh, boo boo boo leen bëggee boolee ndoof ci benn benn bool wala dara dafay xaw a compliqué tuuti ci ñoom ak ni ñuy doxalee liggéey bi ñu xalaatoon ne kon lii moom mooy gën a pratique ñu ne woon nañ ko doxalee noonu waaw. kon liggéey bi mel ni dafa ànd ak ay bernde ak lépp loo xam ne nii xeetu naan la moo xam lu sedd wala lu tàng. waaw liggéey bi moom la noonu lañ koy defee saa su ne rek moo xam muy Poroxaan moo xam muy bis bu Cheikh danañu fexe ba lépp lu ajowoo ci wàllum café ataaya meew ndox mu sedd jus muy boisson ak euh, lépp lu ñuy xewloo rek ñu ñu di ko waajal ngir ngir ngir ngir ngir murid yi mën cee gis seen bopp waaw kay. yéen kàddu ngay tëjee rek ñu bàyyi leen ci liggéey ngeen continuer liggéey bi ñu ne ñu daal di wéyal ci yeneen barab. waaw xanaa di santaat Serigne Touba rek di santaat Serigne Touba ak di santaat Serigne Touba ci mu Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ne nii moom la booleel wax dëgg yàlla liggéey bi mu yéegal ko niveau bu kawe kawe. yaakaar naa la mu waxoon ca njëlbeenam nga ko dem ma dem ko demul ma dem yaakaar na ci loolu la nekk ñun murid yi tamit ci loolu lañ ko wuyu si ngir bëgg rek mu am ndam ci liggéey bi te dina dina ci am ndam bu soobee yàlla ndax liggéey bi moom du laal suuf incha allahu rabbi fépp fu mu woote murid yi danañ jug xam leen ne ñun amuñu lu dul moom moom rek la ñuy topp lépp lu mu bëgg danañ ko def te ni mu ko bëggee rek noonu la koy amee incha allahu rabbi ndax ñun moom Serigne bëgg moom lañ gëm lañ yaakaar moom lañ doyloo ba tax na fépp fu nekk ña nga fa incha allahu rabbi jërëjëf tawfeex laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah bismillah kon soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar fekk la tey ci bisum ndigal ngeen di xitma ndax man nañu xam euh, mbooloo mi di xitma ñan lan ak lan mooy seen taxawaay tey ci Daaru Minam waaw ñun ñooy waa kër sëñ Saliou Fall bu sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ñu ñëw nag ci bisu ndigal bi nga xamante ne nii moom la sëñ Muntaxa woote jox ko Baye Fall yi ah, mu ñu tàmbali ndigal gi daaw mu daaw ñu def ko muy 24 heures ren ñu def ko 12 heures de temps lenn indiw ñu fi nag mooy njëriñ gi nga xamante ne sëñ Muntaxa mi ngi koy wax ci Baye Fall gi te ñuy dund Baye Fall gi képp moo ñu fi indi ñu jaayante ci bis bi ngir am tawféex waaw. tey lan mooy seen liggéey fii. waaw joxe ay xéewal rek joxe ay xéewal rek mooy suñu liggéey fii ni ko sañ bi bëggee rek képp ku fi ñëw daal bëgguñu mu xiif bëgguñu mu mar bëgguñu mu manqué kafe bëgguñu mu manqué dara xitma daal moo ñu fi indi jëf jël googu Cheikh ma fal di wax lu waaye jëf yaay borom looloo ñu fi indi diggante jëf ak jël rek lañ nekk. bisu bi màgg lool lépp aju ci ndigal boo doon soññu mbokki taalibe yi ak sa gis-gis ak sa yëg-yëg ci bis bi lan nga nuy tënkal. bu ñu xamoon maanaam bis bi li muy jëriñ ak fi ko sëñ Muntaxa Bachir teg kon bu wootee kenn du des ndax bis bi boo xoolee du Baye Fall yi rek a fi ñëw ku dul Baye Fall sax ñëw nga fi ndax mbir mee doy waar ca yéeme bàkki Cheikhul Khadim bis bi dafa doon bisub yokkute doon bisub tawféex doon bisub ngëneel ci ñun waaw bisub àjjana daal lañ gu ñuy dund la ñun Baye Fall gi waaw bàkki Cheikhul Khadim jaajëf yaaram illallah la ilaha la ilaha illallah la